الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على إمام المرسلين رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه mbokk yu tedd yi ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaar ñu ngi fii ànd ak équipe Seneweb dot com fii ci xolu ndakaaru di leen eh, ziyaar ci bés bu tedd bii di ajjuma ñu invite ñu fii pour ñu defee waxtaan bi ni ñu ko baaxoo ak yéen eh, defee ko beneen anam ñu ngi rafetlu initiative yu rafet yooyu di ñaan suñu borom dooleel suñu mbokk yi seneweb.com ak ñëpp ñu mel ni ñoom ci liggéey yu rafet yi ñuy taxawee mu mel na euh, yonentu sallallahu alayhi wa dafa wax ne euh, seen borom am na nafaxaat nafaxaat ala inna li rabbikum fi ayaami dahrikum nafaxaat fataarradu laha bésu yàlla yi dafa ci am lu ñoo tuddee ay nafaxaat rabbaaniya yu nga xam ne yonentu daf ne nañu ko taataan nafaxaat yooyu nag yërmande la yiw la xéwal la barke la mu mel ni ñu ngi commencé weeru Chaabaan weeru chaabaan yonentu sallallahu alayhi wa def ci wax yu yéeme bi ci gën a am solo donte yëpp a am solo mooy suñu présentation annuelle bi ñuy def suñu jëf yi ci weer wi lay amee Seydina Usaama qaddasallahu sirrahu neena na dama ne yonantu sallallahu alayhi wa man gis naa la ngay woor ci weeru chaabaan loodul woor ci beneen weer mu ne ko dafa di weer woo nga xam ne dafa nekk ci diggante ñaari weer yu mag weeru koor ak weeru rajab ñu bari di ko sàggane te xam nga lu bari mooy li ñuy sàgganee lëf lu nekk ci diggante ñaari yëf yu màgg nit sax su nekkee ci diggante ñaar ñu màgg ñuñ xam mën naa am màggaayam duñ ko gis mën naa am sax moo gën ñaar yi ko seq xam ngeen ne weeru koor mooy weer wi gën ci weer yi chahru ramadan alladi unzila fihi alquranu rajab bi ñu génn mooy weer wi nga xam ne ci la suñu borom rañaane yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax nañ ne sax guddi altine wala guddi ajjuma gi njëkk ci rajab lañu ñu ëmb yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam guddi gi njëkk ci rajab sax wax nañ ne yàlla du ci delloo ñaan loo ci ñaan yàlla may la ko xam nga yu rëy yooyu su séqee Chaabaan mën naa am ngëne lëm lëm ba nit ñi sàggan ci weeru koor ci la alxuraan wàcc ci la laylatul xadri nekk yàlla ci lay jéggalee ñëpp guddi gu nekk yonentu nag ni ñaar yooyu seq Chaabaan dina tax nit ñi sàgganee ko mu ne ma di ko woor benn ngir sàggan googu ndax jamono yu nga xam ne nit yaa ngi sàgganee mbaax rek mbaax dafay gën a am valeur boo demee ci marché nga xam ne ñëpp njaay ak jënd lañ fay nekkee nga fay tudd yàlla tudd yàlla boobu dafay gën a am valeur ci soo ko defee woon feneen fu dul ci marché moo tax nga gis mag ji daan julli diggante timis ak géeye parce que waxtu la ba nga xam ne ñu bari dañuy dem seen kër jël seen reer walla jël seen leneen en attendant gaye di jot sàggan googu ñu ciy sàggan nag tax jàmm yàlla di ci am valeur bu mu amul woon mujj jamono yonentu sallallahu alayhi wa sallam dina wax ak saxaaba yi ne leen ñi koy fekkee seen benn jëf ju baax dina tolloog jëfu juróom fukk ci yéen ñu ne ko jëfu juróom fukk ci ñun wala jëfu juróom fukk ci ñoom mu ne jëfu juróom fukk ci yéen ndax yéen a man te ku nekk ak yonentu sallallahu alayhi wa sallam soxlawuloo beneen tërbiya soxlawuloo beneen encouragement parce que moom nekkam rek sallallahu alayhi wa sallam encouragement la waalamu anna fikum rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam moo tax nde eh, Anas di wax ne su lu ñu yonentu sallallahu alayhi wa sallam ba dellu si suñu loxo yi jogewul ci poussière bàmmeelam lu dul ne yëg nañ ci suñu xol ne am na lu ñu fakk am na lu ñu manqué mooy présence rasulullahi <laughs> sallallahu alayhi wa looloo tax jaamu yàlla ci weer wii nekk ci diggante ñaari weer yi am solo rawatina koor koor gi pour non seulement jaamu sa borom waaye pour préparer itam weer wu màgg wii ñu jëm muy weeru koor ndax ko am compétition ngay jàng technique yi nga war a compétire di ko bind di ko xool di ko bind di ko xool waaye doo ko pratiquer mën naa am doo jëriñee doo jëlee dara ci compétition naka noonu tamit koor bien que xëy lekk ak naan ak bànneexu sëy ngay abstenir ci moom ngay bàyyi donte loolu ngay bàyyi waaye bàyyi win gi ak ya ca topp dafay jouer ndax yonent dina wax ne képp koo xam ne sa koor terewut la wax ju bon terewul la jëf ju mu ne doo ci am lu dul xiif ak mar kon dañ koy préparer ni ñuy préparer examen ni ñuy préparer euh, compétition ni ñuy préparer ni ñuy préparer kon yonentu sallallahu alayhi wasallam dina ko woor ngir ne dafay préparer beneen bi nga xam ne tudd na ko ci xadis ne moo tax mu koy woor moo di ne weer wii niñ ko waxee ci njëlbeen ci la ñuy yëgati jëfi jaam bi di ko présenter yàlla subhaanahu wa taala mu ne ma bëgg nag bu ñuy présenter sama jëf sama borom fekk maa ngi woor bés bu nekk malaaka yi ñu ngi bind li ngay wax ñu ngi bind li ngay def maa yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wa kulla cheyin axsaynaahu fi imaamin mubin wa inna alaykum la xaafidin kiraaman kaatibina yaalamuuna maa tafaaluun fala nasalanna alladina ursila ilayhim wala nasalanna almursalin fala naqussanna alayhim bi ilm wa ma kunna gaayibin yi ñuy bind nag te yàlla mi leen ko bindloo moo ko gën a xam ndax wa maa kunna ghaa'ibin moo ko gën a xam ndax maa yakunu min najwa thalathatin illaa huwa raabi'uhum wala xamsatin illaa huwa saadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illaa huwa ma'ahum aynama kaanu illaa huwa ma'ahum aynama kaanu mi ngi fekkee lépp wante ci màndoom ak ci jàngale doxalin ak ci jàngale administration ak ci jàngale ruling mi ngi ñu booleeg ñaari malaayka yuy bind raqib ak atid ñu ne boo defee mbaax raqib daf koy bind ci saase moom mooy boosu atid nag soo defee musiba dafay wax atid xaaral bul bind ko mu may la 24 heures binduloo bu euh, tuubuloo mu may la trois jours tuubuloo mu ne kon bindal yàlla noppal nañu ci moom benn bu baax bi nga yéene ñu bind ko mbaax boo ko defee ñu bind fukk bu bon bi nga yéene duñ ko bind ko fekk defoo ko soo ko bàyyee ñu bindal la ko mbaax yonentu ne musiba texee di dal na ki nga xam ne benn bennam yi ëpp na fukki fukk bi yàlla bu suñu benn benn yu bon yi ëpp suñu fukk fukk yu baax yi yàlla nañ bëri leen mbaax te yàlla bu ñu am bon yaara bi ci barke yonentu bi sallallahu alayhi wa mu ni soo defee mbaax walla loo mën a def malaaka yàlla jox na leen ñaari jour yu ñuy présenté jëf yi muy altine ak alxames nga si tamit yonentu sallallahu alayhi wa sallam daan woor altine ak alxames benn mu ne altine ci laa juddu ñaar mu ne parce que altine ak alxames ci la ñuy wan yàlla jëf yi raison kon yi taxoon mu koy woor moom altine raison yi taxoon mu koy woor moom alxemes raison yooyu ñoo tax mu daan woor ba si Chaabaan ngir ne suñu jëf yi ci lañ koy présenté yàlla mu ne te bëgg naa sama jëf suñ koy présenté yàlla fekk maa ngi woor bëgg naa sama jëf suñ koy yëgati jëm ci yàlla fekk maa ngi woor bu ko defee koor gi lu ca nëxoon te jëf yonent bi du nëx ñu lay jàngal lu ca nëxoon mu teyal ko ndax yàlla li teeyul du yegg ci moom ilayhi yasaadul kalimu tayibu wal amalu saalihu yarfauhu subhanahu wa taala kon koor gi nga xam ne moom la daan def ci chaabaan bi wane na ngëneelu weer ndey aïchatu radiallahu tabaraka wa taala anha nee na yonentu sallallahu la woor weer ba mu jeex lu dul weeru koor mu ne wante gannaaw weeru koor mosula woor ci wenn weer lu toll ni lim daan woor ci weeru caabaan daan woor weeru caabaan yépp ba mu des lu tuuti kon wane na lu weer wi bi ci des yonentu sallallahu alayhi wa sallam wax na ne benn guddee ngi ci weer wi muy laylatu nisfi min chaabaana suñu borom dina ci wàcc nim yellee ci moom subhaanahu wa taala ba ci asamaanu benneel bu jant bi so mu naan waa ana ku soxla njëggal ma jéggal ko waa ana ku am natt ma jàmmal ko ana ana ana ba fajar di xar yonentu dana wax ne sallallahu alayhi wa sallam guddi googu yàlla dina xool waa suuf yëpp baal ba mu des ñaar benn mooy kii bokkaale ak moo tax ngeen xam bokkaale ni mu doye waar yal nañ ci yàlla boole musal inna allaha la yaxfiru an yushraka bihi wa yaxfiru ma duna dalika liman yasha ñaareel bi mooy mushaahin illa li mushrik aw mushaahin mooy ku am dara ci xolam contre qui que ce soit yonentu na ñi nga xam ne am nañ dara ci seen xol moo xam mbajante la walla merowante gu tegewul ci yoonu sharia nee na suñu borom dafa leen di put on standby du leen baal ba ba ñuy juboo ba ba ñuy génnee loolu donc loolu ñu war ci bàyyi xel mooy ñaar shirk yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee shirk moo gën a sew melentaan wuy daw ci kaw montagne te montagne ba nekk ci lëndëm njeexitu melentaan bi wala jis melentaan boobu ci diggu guddi muy daw ci montagne nee na bokkaale moo ko gën a nëpp yal nañ ci yàlla boole musal mbañeel it dafa dafa yomb nit ki li muy bañee nit ki dafa bari waaye yooyu yëpp dafay fekk parewuñ ci moom te koor dina tax ñu pare ci yow ndax koor tarbiya la bal min afdal eh, anwaai tarbiya mi ngi bokk ci xeetu tarbiya yi gën kon nag bés boobu nga xam ne mi ngi ñëw weer wi nga xam ne mi ngi ñi ngi ci te bés boobu fi ñaari fan la tey le 13 Chaban ajub suba samdi gannaaw suba dimanche guddi dimanche jëm altine mooy guddi gi nga xam ne mooy guddi laylati nisfi min Chaban dina bëri sax ci tafsir yi boo seetee tafsir yi ñu askane ci Seydina Abdullah ibn Abbas yooyu wane ne guddi googu ci la yàlla di bindee ñi war a dund ren maanaa ñi war a judd ak ñi war a faatu ci lay bind wërsëg yi ak nëttu yi ñi war a am ak ñi war a ñàkk moo tax di nga gis ñeenti rakk yi ci eh, mag ñi ñu mel ni Cheikh na Tidiane yi daan eh, julli ak ñaan yi ñu ci daan ñaan ndax ñoom ñu ngi interprété fiiha yufraqu fiiha yufraq kullu amrin hakimin ñooñ tafsir ñu ci bari ñu ngi koy tuddee ne mooy laylatul nisfi min chaaban donte li gën a siiw moo di ne guddi googu mooy guddi laylatul qadr waaye dafay wane rek kon ngëneelu guddi gi nga xam ne moom la ñuy jublu si ngëneelu weer wi nga xam ne moom lañu nekk suñu borom nag buy def ngëneel du tàggu kenn du wut sabab bind na lim bind yëpp tànn ci nit bi mu bindee nit ñëpp mu tànn ci jullit bi mu bindee tànnee jullit yëpp mu tànn ci ñoom xeetu yonentu sallallahu alayhi wa jullit yëpp mu seet yonentu yi tànn leen ci yonentu yi yëpp mu seet yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam tànn ko ci gannaaw bu mu tànnee 313 yi gannaaw bu mu tànnee tudd ñaar fukk juróom ci alxuraan gannaaw bu mu tànnee juróom yi nga xam ne moom lay wax fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul sayyidina ibrahim sayyidina nuux sayyidina muusa sayyidina isa jël yonentu sallallahu alayhi wa sallam jox ko ngëneel gi wa ida xadna min annabiyina mithaqahum wa minka wa min nuux balaa moo tudd kenn alayhim salaatu wasalaam yonentu sax dana wax ne maa gën ci li yàlla bind te loolu du kuugare yàlla nag ni muy noonu la tànnee weer wi tànn yi tamit guddi gi nga xam ne moom lañu jublu si ñu ci sopp nit dundalee ko jaamu ci yàlla ndax danañ ko tuddee tuddee guddi tuub eh, am na ku ñuy wax Maalik ibnu Dinaar bokk na ci ñi gën ci taabiin yi nee na moom policier la bu soxar yàlla atte mu am jëbe yàlla natt ko mu bëgg mu am ca doom yàlla natt ko mu bëgg doom bi balaa doom bi am quelques années faatu loolu traumatisme ne mu tëdd guddi fukki fan ak juróom ci Chaabaan ñu wan ko ne ko yowmal xiyaam dafa tax ne mi ngi gis benn jaanan ko topp muy daw fu mu jëm mu topp mi ngi gis benn mag mu rafet bu ne ko dimbale ma rek mag mi du ko mën dimbale ne ko dawal nga dem fële jéem a seet ku la dimbali ndax man awma doole mook loolu mook loolu mook loolu ba bi muy yegg ci xayma bu malaaka yi naan xayma bële ñi nga xam ne am nañu mbaax fii ñoom la ko suñ borom defal bàyyi leen ko mën naa am am na fa dara ne ma ñëw rek ñu ngi ma wan xale yu bari mosuma gis ñu rafetee ñoom nee na ndeke sama doom a ngi ci doom bu ndaw bu jigéen ñëw rek laxasuma ne bii nga xamee ne jaan baa ngi bëgg a ñëw rek xale bi ne ko nii mu dem ne mi ngi téye sama sikkim naan ma papa alam yaani lilladina amanu an taxshaa qulubuhum li dikrillahi wa ma nazala min alxaq nee na mani ko sama mbir lan la ni ko gis nga jaan ji mooy jëf yu bon yi nga daan def ñoo lay mbugal booyee ba bàyyi ko mu ne ko mi mooy jëf yu baax yi nga commencé te dëgëragul pour sauver la ca la yeewoo tuub tuub gu dëggu génn ca lam ne woon yëpp yàlla nangul ko loolu mu ngi amee woon ci leelatu nisfi min Chaaban ahlu siyar sax dinañ wax ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam am na ñaari événement yu ama am solo yàlla nangul ko ci ñaan muy ay mujisa yu amul ndend ñu ne mi ngi amee ci guddi fukki fan ak juróom ci weeru baraxlu wi laylatu nisf min shahban bu njëkk bi mooy bi ko waa Makka di laaj kiimaan pour mu xotti weer wi iqtarabati saatu wan shaqal qamar muy ñaan di ñaan ba yàlla wàcce ñaari wàll weer wi bii fële bële fële ñuy gis ñu ne lii de njabar la ka ci ëpp xel ne nañu bàyyi ba nit yi ñëw ndax weer fu ne lañ koy gisee bu fekkee ñu rekk ko gis ñu ne kon def ñu njabar bu fekkee fépp la nag ñu xam ne kon weer wi actuellement weer weer wi actuellement moom la moom la moom la xotti bi ñëpp ñëwee ku nekk ne gis ngeen liñ gis ñu ne ah ki kon njabar gu continuer la sehrun mustamir waaye yàlla moom tuddeewu ko loolu xikma baaliga la ko tu tuddee subhaanahu wa taala nga xam ne kon ndeke du mujiza mooy gëm loo nit waaye tawfiq ilaahi mooy gëm loo nit parce que yi yàlla defoon mujiza yëpp jox na ko tey la race jox na ko tey xeetu yonentu sallallahu alayhi wa sallam te terewul tey la ñu gën a weddi yàlla nañu yàlla musal yaa rabbi mujisa bu gudd bu rëy boobu yonentu sallallahu alayhi yàlla nga ko ko joxoon ci guddi googu bi ci des mooy taxwilul qibla min al bayt eh, min min bayt al maqdisi ila eh, al masjid al haram ñu ne suñ borom mi ngi ko ko joxoon encore ci Madina ci guddi gii di leylatu nisfi min chaaban qad nara taqalluba wajhika fi samaai fa lanuwalliyannaka qiblatan tardaha bokk na ci ngëneelu guddi googu wax nañ ne ñeenti euh, juróomi guddi yi suñu borom subhaanahu wa taala du ci delloo ñaan guddi gu njëkk ci rajo wax nañ ko ci njëlbeen ak guddi leylatu nisfi min chaaban ak guddi aljuma bu ñu ne suba ak guddi ñaari iid yi moo xam korite moo xam tabaski kon nag weer wi weeru ngëneel la weeru woor la weeru jaamu yàlla la weeru préparation la weeru ñaan la weeru euh, taxawaat setal xel yi ak setal xol yi ba lu ñu amoon ci mbañeel envers wala against anyone ñu dindi ko ba lu ñu amoon ci mbaax ñu yokk ko dinañ tuddee guddi gi leelatul baraa di ngeen gis yenn ci xeetu julli yi ci mag ñi di julli dëgg la nag am na ay xadis yu ci wàcc yu nga xam ne eh, wéruñu waaye nag bëri na yu wér te doy na ci rek li yonentu sallallahu alayhi wasallam wax ne yàlla fa ci baal jëpp ba des ñaar ñi doy na rek ci weer wi li yonentu sallallahu alayhi wax ne ci la ñuy jël jëf jëf yëpp wan suñu borom subhanahu wa taala kon nag ñu préparer eh, weeru koor wi ci weer wii nii weeru koor koor duul rek xiif ak mar waaye di nga woor ba sa làmmiñ du wax mbon ba sa bët du xool mbon ba sa loxo du laal mbon ba sa tànk du jox jëm ci mbon ba sa xol du xalaat mbon dafa am koor pour samba surabaale si mel ni man yàlla ñu yàlla baaxal mooy ñi nga xam dañuy xiif di mar rek moom la ñuy wax sawmul am am koor bu nga xam ne nag pour élite yi la mooy ki woor tànkam woor làmmiñam woor bëtam woor lépp woor boobu baax na ak a baax sax waaye am na bu ko gën nag mooy bi ñuy wax woor dëgg-dëgg mooy wooru xaasati la xoosso mooy fexe ba xol bi lu dul yàlla du ci ne lu dul yàlla du ci ne mooy lu la dul jëmale ci ngërmande yàlla rek du ca nekk subhaanahu wa taala yal nañu yàlla may koor gu mu gi ñu ngi ñaan suñu borom mu defaral ñu suñu zaahir defaral ñu suñu baatin ñu ngi fii ndakaaru euh, problème yi bari nañu crise yi bari nañu euh, ci àdduna bi foo xool moo xam New York la moo xam fii la moo xam fële la waaye ci barke weer wu tedd wii di Chaabaan ci barke weer wu tedd wii ñu jëm di koor ci barke weer wu tedd wii ñu génn di rajab ñu ngi ñaan suñu borom defaree ci zaahir yi defaree ci baatin yi soppi àdduna jox lislaam doole jim ko joxoon ba lislaam euh, nekk manaara buñ mën a gis donte mi ngi ko mi ko nekk du yàlla suñu borom moom eh, manaaraam du mos fay waaye bët yi nag ñooy bémpéem ñuy ñaan yàlla mu ubbi bët yi ba doole ji nga xam ne moo nekk ci lislaam kattan gi nga xam ne moo ne ci lislaam mbaax gi nga xam ne moo ne ci lislaam ñu xam ko te toppatoo ko te def ko ni nga xamee ne eh, jëriñoo ko ni nga xamee ne noonu la suñu borom bëggee ci xikmaam subhaanahu wa taala fii lañ leen di eh, tàggoo ba beneen ajuma ñu ñaan yàlla boole ñu baaxalal yëpp ci barki yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam seen mbokk muhammad saaxo wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu